waaw comme dañ autonomisation de la femme nekk ci développement ak ci liy dundal gox donc euh, ñu commencé nag di def ay ndogu Tambali won ko Caaroy def ko Kër Massar ren nak ñu ne dañ koy def euh, au niveau de Nord Foire pour partager ak ñom dëkk gi ñu dëkk ak euh kóllëre gi ñu yalla bolé bëgg aussi joxé le bon exemple parce que nak social dal ci la lepp xaj ñu dund en communion ku gis ni mu demee tey rek nga xam ni communauté la ku nekk dafa génn def dooleem donc euh, loolu la ñu bëgg a bëgg jeunesse bi roy ci ñun parce que njëkkee wuñ ko fi nag mais fii Nord Foire ñun ñoo ko fi njëkke di ñaan yàlla mu law parce que nag bu ñu partagé ak ñi nga xam ne yàlla may na leen liberté ñu ngi dund ak ñun donc ñu jéem a partagé ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw ñu tënk leen bañ leen a rek marginaliser xam ne ci ñun la ñu bokk te bu ñëpp beddee rek day doy waar te ñooñu tamit ña fa nekk ñu ngi ci seen ay activité parce que nag bu ñu nee développement ñoom ñu ngi ci seen ay céréales ñu ngi ci seen ay cuub ñu ngi ci seen yeneen ak yeneen ak yeneen di ñaax aussi nit ñi ñuy leen di fréquenter di jënd ci ñoom parce que nag loolu tey bu ñuy génn da leen di dimbale ak nekkin gi ñuy nekk ci biir daf leen di dimbale ndax dina tax ñu mën a def seen ay achat ci boutique yi dina tax ñu fàtte dina taxit bu ñu paree insertion bi yomb parce que dañ leen di marginaliser bu ñu paree mën ñu fekk si ñi ñu fa former du ñu former ñu tënk ak ñoom relation incha allah ñuy ñaan rek justice def yoonam parce que nag violence bi mu ngi bëgg a bëri nee naa li ñu gis ci bët rek la ñu kii muy yi nga xam ne gis nañ ko daal parce que fës na mais yi ci biir kay yi moo gën a métti parce que bëri nañ femme abandonnée yaa ngi fi euh, nuñ koy euh, jigéen ñi daal sonn nañ nañ leen wàllu delloo leen euh, nuñ koy waxati éduqué waat xalé yi parce que lépp éducation de base la buñu ñu commencé di waxtaan ak ñom à la base di ci yar xalé yi defe naa yu bëri dinañ ko bayyi lu ci melni alcool bi lu ci melni drogue bi ñun de saf on s'engage vraiment di dem vers la population di len wax de manière bénévole di euh, sensibiliser bëgg nañ nak lolu état bi def ci école ko dès le bas parce que nak ñi dem dem mais ñi juddu nañ 2008 euh, ak légui nañu commencé ci ñooñu yar leen ñu nekk référence